mbokk internautes yi dalee nag jàmm Abba No Stress ñu Abba National mi nga xamante ni nag daanaka ràññee nañ ko lool mu nekk ab animateur ci groupe fu mu toll nii nag ci ay jafe la nekk ak plateforme bii di TikTok di social bi nga xamante ni nag moomeelu chinois yi la moom Abba No Stress dafa xëy gis ñu daal di nag tëj compte TikTok am mu mekk loo xam ne métti na ko lool mu yuux ko fu ne itam moom Abba No Stress daal di nay ay sax jaaree fa daal di envoyé nag benn contestation lii di nag ñi nga nga xam ne ñoom ñoo daal di jiite boobu de réseau social waaye nag euh, nanguwuñu ko tontu ba tey ci euh, mbir mu ni mel lu dul nag joxuñu ko sax benn explication boo xamante ni nag war na ci mën a sukkandiku ngir nangu nag tëj gi ñu daal di tëj euh, bile compte TikTok moom Aba No mi nga xamante ni nag amoon na lu toll ci huit cent mille abonnés nag nekk loo xamante ni daanaka record la ndax bëri na ñoo xamante ni ci TikTok bi daanaka eggaguñu nag ci boobu le nombre d'abonnés ci page TikTok bu Aba No Stress di mu daal di nag capitaliser te bu ñu fàtte ne TikTok dañoo commencé di fay nag li nga xamante moom mooy nombre de réaction nombre d' ak i tamit nombre d' abonnés yoo xamante ni ak nombre yoo xam ne da nga koy daal di am rek dañ lay ah, daal fay moom Abba ne li mu liggéey ba fii nag amul dara loo xamante ni nag def na ko ci loo xamante ni daanaka ay tere la yu réseau social bi ndax lu dul ay mbirum comédie ah, du ko publier ci page am boobule waaye am na ñu njort ne moom Abba No Stress keroog ah, bi mu daal di nag demee fa li nga xamante ni nag moom ci benn soirée boo xam ne moo géej si moo ko daal di nag organisé woon dañoo gisoon nii rek moom Aba No Stress dafa meloon ni nag ku euh, dal di nag euh, nekk nag doon kokkali nag homosexuels yi ndax nag bu leen fàtte di fu mu toll nii ci réseaux sociaux yëpp ci Facebook sax gis nañu gal seen fan ñu daal di tëj nag seen page bi ci nag nu mu nekkee ni jamono ji nag si page boobee ci Facebook dañ ko daal di tëj ginnaaw nag ñu defoon ay publication ak i yoo xam ne dañuy dénigrer li nga xam ne mooy wàllum homosexualité mu mel ni loolee nag metti na ñi nga xamante ni ñoo jiite boobule eh, page nag ñu daal di fay eh, jaaree nag daal di nag bàyyi li nga xamante ni nag eh, moom mooy page bi daal di koy tëj ba nga xam ne mënatuñoo nag envoyé message nii daal di publier fa dara moom Aba No Stress ne nag musuta def loo xam ne dafay daal di a wàllum homosexuel yi ndax nag ku nekk ak sa vie waaye du tee nag yenn saa liggéey mooy laaj mu leen di côtoyer te itam musul daal di jóg nag ngir daal leen nag kokkali ak yu demee noonu ak lu mu mën ci doon nag ci joxe sa xalaat ci euh, ni nga ko daal di euh, bëggee moo tax moom Aba No Stress mu daal di euh, foog ne rek mbir moomu moom moo daal di tax ndax moom mi sax bëri na ñoo xamante dañ koy daal di nag tooñ naan kaan rek yow say su ne da ngay daal di nag invité homosexuel wala bokk da ngay bëri li leen di côtoyer waaye du tontu waaye daal moom li mu bëgg fu mu tol ni mooy ay followers am laaj na leen ñaan na leen itam ñu daal di def ay réaction daal di mentionné page bi ngir nag waa TikTok delloo ko nag li nga xam